moom ko moo bari diine bari ngor bari xam-xam te mën ta war ñi meeb xam la ko war wuute wu la kersaaki taggil moo kaam te mët wala renel naam du xeeb du naw moo bari jom ñi me tañu ku sell dara di yomboor fi tam du tax mu ras ba dem mooy duwaañee jëmu maam Cerno jënn jëmm la aajo ju mat naa ko diisoon ñam war a giseel lum na digal def na ko teelum terey num bay ñeent fukki kilomètre yu wér la Cerno toolo maa ko ko wax waxinu wér ngeen xam ni kooki kenn xoolal nga xool mbay samaan këleen xëttale moo fi daan bàjja bi moo ñàkkoon ki ñaan amul moroom kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kàddu gooy nuyu lislaam nga xam ne jullit yëpp ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll ngi ci waaye fii mu ñëw tey nag daa doonoon dig boo xam ni ña ko fekkewul ñoo ko wax ñi ko fekke muy kàddug Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul ci Cheikh Ibrahima Faati Mbàkke fare woon na ko fu ne ci ndigalam ci di ko digal muy def te musu koo tere loola nag alxuraan dara da koo mënta ëpp waaye fa ko sëriñ tegoon ba tax mu jàngal ko ko ba boole ko ñu mu koy jàngal bés boobu nag bés yooyu yenn fekkiwuloon yooya nag ñooy tontu tey looloo tax ngir ñëw tey foo xam ne doomi Cheikh Ibrahima Faty la euh, moo fi nekkal ñi fi nekkan te nekkatuñ fi waaye moo fi nekkal it ñi fi nekk te nekk ak moom te mu nekk fi seen kanam waaye jataay boobu mënoo ko tudd te tàmbali woo ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul kon Serigne Mountakha bés ngi nii boo xam ni ginnaaw bésub Serigne Touba la bésam la waaye fii ngeen ñëw nag. fa tabaarkàlla mooy Daaru Muxti mooy Serigne Bassirou Anta Niang moom Cheikh Ibrahima Faty mbakke tooge ab jataayam fa tabaarkàlla alxuraan boo doon topp tànkam ba dugg kër Serigne Bassirou mën nga faa toog te xam ni foofa alxuraan kërama mën na faa yendu mën na faa fanaan ci jémmi boppam mbaa ak njabootam ak ñi mbokkal borom Daaru Muxti mbaa taalibe yi ñu ko jox te xamuñu lu dul alxuraan ci seen woy jural loola nag moo dellu si tey jii looloo tax kër Serigne Balla Gaye bu ñu ca demee ci ndawam Serigne Cheikh Ibra Faty joxoon ko ñi doon liggéeyal Serigne Touba ci wàllu soldaar waaye ba ñu ci jógee dellusi mu nekkaat ak Cheikh Ibra Faty fi mu bàyyi ko woon tey jii nag lii am ci Sénégal mbaa mu am ci Afrique te musta am fenn mu ngi bàyyi ko ci liggéeyub Serigne Touba boobee mu defoon ci Cheikh Ibra te mu def ko ci mbooleem kuna asadu an laa ilaha illallah looloo tax tey nag ñu di leen bàyyee ak Serigne Moustapha Diop. waaye bu noppee dina jox kàddu gi ki ñuy wax moo Modaw Balla Mbacke di doomi Serigne bi mu yar ko jàngal ko boo doon seet Serigne Bassirou Anta Niang ñu di la ko tegtal dañu la boo nee salaamaaleykum ci buntu kër bi boo nee bu dee jigéen bu dee góor loo soxla ci alxuraan loo ca wax ak moom loola. Euh, fa tabarkàlla ku xam alxuraan du ko mën a dindi ku bëgg alxuraan dina ko mën a dégg kuy jàngale alxuraan da ko fekk ci moom kon ñu jël kàddu gi nag bàyyi ko ak Serigne Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin ci bis bii di bisu mbégte di bisub alxuraan alxuraan dellusi ci dëkk bu mu miin muy dëkkub Thierno Ibra Faty mi nga xam ne moo fi nekkaloon Serigne Touba nekkal fi alxuraan ba yàlla may nu résultat bi tey maam Thierno Birahim bindoon na ab kaamil ci loxo boppam jox ko Serigne Touba mu yóbbaale ko ci géej gi ba mu dellu see kaamil ba fii la dellusiwaat siwaat loola di ndam ak ñi nga xam ne jàngal na leen ñépp ci wàllu alxuraan ak xam-xam képp koo xam ne tey ñu ngi lay tudd ci yoon wi euh, jàpp naa ne ña nga xam ne ñoo ci jiitu am nañu ak jokkoo ak Thierno Birahim ci wàllu jàng ak jàngale kon loolu ak cant gu rëy rëy la lii nag alxuraan la fii ci Darou Mouhty miin nañ fi alxuraan miin fi njàngum alxuraan waaye miin fi dong yu jàng alxuraan ba mokkal alxuraan ji jaajëfal sunu doom ji nga xam ne moom la yàlla may ndam lii eh, adduna yaatu na Sénégal yaatu na waaye nag fii ci Daarul Mooti dëkku Cerno Birahim fi la yàlla andi alxuraanul karim di lu sëriñ tuuba fonkoon lu Serigne Touba bëggoon ba tax muy wax lu bare bare ci ay mbindam kitaabu rabbiyal kitaab bi nas si kitaab ak yeneen yu mel ne yooyu di wax ne alxuraan mooy sama alal alxuraan mooy sama lépp. kon tey bu ñu ko indilee ndamal alxuraan fii ci dëkkam bii loolu ndam lu rëy rëy la di ci siyaare bu baax sëriñ Basiru mi nga xam ne moo fi nekkal borom daaru moom it di ndam ci moom di ndam ci ci dëkk bi yëpp bi liy xewee ba léegi fu ne ci àdduna bi ñu ngi woote naan daaru musi am nañ ndam daaru musi daaru musi loolu yëkkatiwaat na turu daaru musi ca kaw kon ñii ci sant yàlla bu baax di sant njabootam gi ak di sant mbooleem nag jàngalekati alxuraan yi nekk ci dëkk bi ñi nga xam ne ay daara lañ yor di tàggat ndaw ñi ñu ngi leen di gën a soññ waaye itam di gën a soññ jur yi ak euh, mag ñi ak kilifa yi ñu gën a dimbale xale yi xale yi macha allah ñu neex ay xel lañu ñu bëgg jàng alxuraan lañu moo waral ndam lii tey am ci sunu doom ji nga xam ne tout tànk la di ñaan yàlla barkeel ko di ñaan yàlla saxal alxuraan ci Darou di ñaan yàlla ndam yi bari lool lool lool te yàgg fii ñëw kon suñu Amadou lii rek mooy laaj boobu. jërëjëf sëriñ Moustapha tey euh, Moustapha ni doon wax ak yéen lu ne ci moom lu mu xam. lu mu xam le ci sëriñ Abdou Khoudous la ko jëlee mu yare ko ko jàngal ko ko di mbokk dib taalibe te bàyyi koo ca daara ja wax lii mu wax waaye boo demee Amérique it loolu la fay wax waaye tey day képp ku yëru araf te mën koo tari mbaa nga di ko ijji mbaa nga di ko boole sa xel dem na ci sëriñ Abdourahmane Mbacke ak li mu doon liggéey waaye sa xel dem na tey ca kër sëriñ Souhaïbou moom sëriñ Touba waaye dem na ca kër kan sëriñ Mourtala boo ko doon lim doo jeexal ndax dëkk bi kat nii mu toll mbooloo mi toll ni ni la daara yi toll te jenn daara fayu ci koo ci seen ku mën a doon bu dee góor mbaa jigéen aay joo ko wax mbaa saar woo ko wax mën na koo tari kon nag bés dañu koy bàyyee ak borom mboolem koo xam ne Cheikh Rafati mooy sa wajur Serigne Moura Balla mii di wax ak yow ñu duppee ko baayam mu toog nii di doomi Serigne Bassirou Anta Niang noppi na ci alxuraan noppi na ci biyar noppi na ci taalibe dox diggante Serigne bi ak dongo yi kon bu jëlee kàddu mel na ni ñëpp jël nañu kaddu sëñ bi kàddu gaa ngi dem bu rek sëñ kenn ci sëti borom daaru yi. néegu sëyam ci la àggalee kaamil ba mu doon bind. walbati ko jox ko waajuram. est-ce que est que loolu sant yàlla la jërul jooy waaye alxuraan xajut ci dënn ndax wax yàlla xajul ci kenn looloo ko yëngal nag ba tax rangoo ñoom daal dënnam kon sëriñ moo daaw balla kaddu gaa ngi nii. Euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ci kër sëriñ Bassirou Anta Niang euh, li sëñ Moustapha wax rek euh, alxuraan moom dellusiwaat na ci kër gi mu dëkk ndax bu fekkee sëriñ Touba radiyallahu anhu dafa dénkoon maam Thierno wàllum njàngale ni ko sëñ Moustapha waxee léegi ku ne xam na ne kaamilu Cheikh Mouhamadou Moustapha fekk na sëriñ bu mag bi Gabon boo xam ne fii la ko bind ci Sénégal fekk sëriñ bi Gabon Daaru Muuti it jàpp naa ne bi ko sëriñ bi santee mboolem gox yi ko wër yi ko wër yëpp ay daara alxuraan la sëriñ Socé Ndiaye sëriñ Moussa Ka sëriñ Balla Gaye ñoom ñëpp dëkk bi yëpp daara alxuraan la kon tey jii ndam li bu fekkente ne dafa dëkk dellusiwaat ci Daaru Muuti kon li sëñ Moustapha wax léegi laay dëggal na fi fi mu dëkk ah, sëriñ bi itam ah, ku ne xam na ne fi mu tegoon alxuraan fu rëy rëy la kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bi dunya wa uxra minal karbi téere boobu yàlla sunu borom wax ne téere boobu mooy sunu muccukaay mooy sunu yaakaar mooy sunu lépp kon tey dañuy ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñi dañuy jàngal alxuraan ñëpp ci dëkk bi Darou Mouhty sëñ Bass Anta Diang mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ndax ndam lii daal ndamul Darou Mouhty la dellu si waat na ci Darou Mouhty ndamul Sénégal la waaye nag Darou Mouhty moo am ak jagle na ne ci alxuraan lañ doon yëngu xale bi foofu la dëkk tey mboolem kuy jàngale alxuraan ci Daaru Muti mboolem kuy jàngale ci Sénégal mboolem kuy jàngale ci yoonu murid tey am nga mbégte mu rëy rëy tey ndam lu rëy lii nga xam ne moom la Sénégal am Daaru Muti kon sëriñ bi nee na mi ngi ciy bu baax a baax moom mi nga xam ne tey moom la yàlla dogal tey mu nekkal fi borom Daaru a soññ a ñëw a ñëw ci Daaru Muti gën fee gën fee fekk bu baax a baax suñu tey mbégte lañ am mu rëy rëy moo xam ne mi yàlla suñu borom rek lañ koy seeral tey tey dal alxuraan li ko suñu sooxee léegi dellu si na ci dëkk bi nga xam ne miin na ko lool xam kon ñi ngi sant mbokk mbokk yëpp di ñaan suñu borom daal xale di sëriñ Mouhamed Gueye yàlla na ko yàlla suñu ay moromam yàlla na yàlla sàmm nga xam ne ñooy wattu alquran yàlla suñu borom mi xam ne moo moo wax ne inna nahnu nasalna dikra wa inna lahu lahafizun moom wattu alquran moom bi nga xam ne moo wattu mboolem kuy yëngu ci alquran mboolem kuy yëngu ci dara nee na yàlla mi ngi ñaan yàlla ci barket borom leen ba nab gën a ñëw ci daaru muti baax bu gan ñëwee indaale alxuraan te jë jëlewoon alxuraan ci dëkk bi delloosi ko ci dëkk bi bala ñuy wax ak moom genn kàddu yaa koy dalal kàddu gaa ngi doon la ko jàngaloo te nég ko ba kon kàddu gaa ngoog أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن إن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فجعل من دون ذلك فت فتحا قريبا صدق الله العظيم Mohamed dem na ci sëriñ Bassirou ba génn mu ngi toog ak sëriñ Abdou Samad moom Cheikh Mohamed Hawa Balla euh, Serigne Abdou Samad mii toog waajuram di Cheikh Mohamed Hawa Balla maamaati Mohamed Gaye mii di sëriñ Balla Gaye Mbarakan mi nga xamante ni ba mu jébbaloo ci borom Daaru Muuti ay bokkam dañ ne woon daa mënul alxuraan moo tax mu dem jébbalu ci borom Daaru Muuti mu ñëw ci borom Daaru Muuti ni ko damaa bëggoon nga may ma ñaari weer rek. ma dellu jëmooy bind ab téere ab kaamil bu yeggee ma dellu si waat ndax nee nañu dama mënul alxuraan borom daaru musu ni ko accam am na ku lay wax kaay ma yenni la de bëgg xam la nga yennu rek moom moo tax sëñ Balla Gaye Mbarakan moomee nag mooy waajuru Serigne Thierno Gaye mi nga xamante ni mooy waajuru Mame Balla Gaye mi waajuru Mohamed Gaye mii kon dëkk bi nga xamante ni borom dëkk bi moo jàngal ñi raw ci yoon wi dëkk ba nga xamante ni falam euh, alxuraan wàccoon jibril wàcce ko fa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doomi daarul moxti sëtum sëñ Thierno gay sëtum sëñ Balla Gaye sëtuñ ma bañ sëtuñ ma bañ xuja Njaay moo dem ba ca biir arab ya téeméeri euh, euh, nation téeméeri réew ak juróom-benn fukk mu ni coppet raaya wa ko borom daarul moxti kon moom la doon tatagal tey sëriñ baa ngi nii toog bokk yi kon kooku mooy Mohamed euh, Gaye moom sëriñ Balla Gaye moom sëriñ maam Balla Gaye sëriñ bi dafa wax ni sëriñ Abdou yaa ak njaboot gi dem leen ca mbooloo ma ñaanal leen fa tubaarakalaaw bëgg ak lañ leen bëggal ci bis bi ak ci ak ci ndam li sa borom defal leen ko afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun fataala allahu almaliku alxaq لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم بسم الله amiin góorgóorlu rek góorgóorlu ci mu metti ngay muñ di ko jàngal di ko teg ci yoon ak nangoo xaar waaw da ngay nangoo xaar xam nga lu bëree bëri ci nit ñi dañoo gaaw a ci alquran xale bi day wàcc wala mu mokkal ñu ne mokkal na moom lañ ci doon fere daa métti nangam nañ ko bàyyi mu jibbi ñun nag alquran dañ ko def muy suñu dëkkuwaay dañ ko fas yéene fas ñu ko yéenee génn kon xale bi ba mokkalee ak léegi alquran yàgg na mais boobu ba léegi ñu ngi continuer ak moom di ko jàngal tajwid muy jéem a xam maxaarij jéem a xam nan la ñuy jàngee alquran ba bu demoon ba ca bitim réew fa naar ya nekkit su ko jàngee mën cee génn. Hmm. te loolu fi ne nii ñuy wax ak yéen yi dañoo jàpp ne ñun bu su bu weesoo suba muy tey nii mbub moom soloon di toog ci mbaar may jàng moom lay solaat dàll ba mu daan sol moom lay dara du changé dafa commencé jàng mais jëmagul fenn fenn fenn fenn ci alquran xaajalagut sax. fii ba mu am trent ans day jàng incha allah. te lan mooy objectif bi. bëgg mu nekk nituk alxuraan di jariñ réewam mais nag di ko jaaree ci alquran waaw loolu moom ni ko ñëpp di yëgee rek lañ ko yëgee waaye nag ñun teewuñoo liggéey ñun bu ñu amee mbaaru gittax moo xam am na ñu am lu ñu def suñu biir rek dañuy jàngale incha allah ñu danañ leen bàyyi xel xëy na am ñox ñun ci société bi lañ bokk war nañ ñu bàyyi xel waaye nag ñu ñëw ak ñu ñàkk a ñëw ñu dañuy continuer di def suñu liggéey ndax fi ñu fekkoon suñu waajur di ko liggéeyee moo gën a metti fi ñu nekk nii te teewul dañ ciy continuer insha allahu taala ba am ci ay résultat li ma leen di dénk mooy li may dénk sama bopp ñu xam ne téere bi moom ku ci nekk da ngaa war a muñ ndax muñ rek mooy tax lu mel ni mën la cee fekk soo muñut lu mel ni lu mel ni du la ci mën a fekk ndax yàlla suñu borom mayut kenn nga tàmbali mbir rek am ci résultat même liggéey bii ngeen yor nii sax da ngeen ciy nekk muy metti ngeen di muñ ba ngeen dem ba ca mujjantal ñu door a ay résultat yu baax addina lépp lu di nekk te bëgg ci ay résultat day nangoo